Babacar Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Thiam Ngom. alors ñu am mbégte dalal euh, tey ñu war a nag waxtaanee actualité euh, muy surtout rapport cour des comptes yi nga xam ni génnee nañu ko euh, si ñetti fan wala ñaari fan yi ñu génn rapport 2015 2016 ak 2017 yow ak forum du justiciable bi nga jiitee ngeen yàggoon di sàkku rapport yooyu génn kon mun nañu wax ne tey am ngeen mbégte. waaw am nañ mbégte ci benn côté mooy. c' est vrai que xaar bi yàggoon na xaar bi yàggoon na trop. Euh, te boobu ba léegi ñoo ngi doon demander à ce que la cour des comptes mun a génne fësal li nga xam ne tey moom mooy ay rapport am donc euh, génne nañ ko naam yéex na parce que mais nag li amoon solo mooy na génn. Mm-hmm. waaw comme fu mu nekk nii génne nañ ko mun nañ ni quelque part am nañ satisfaction donte nag bon ñoo ngi doon xaw a naqarlu le fait que euh, boobu léegi ñu toog parce que bu ñu demee ba deux mille vingt wax dëgg yàlla ñu ñuy jox rapport u deux mille quinze deux mille seize ak deux mille dix sept donc loolu je pense que ni euh, war nañ ko mën a naqaru di ñaan également parce que dégg nañ pré président de la cour des comptes euh, joxe ay garantie ne ñoom dinañu def de telle sorte que euh, retard yooyu ñoom dinañ ci indi ay saafara pour que chaque année ñu mun a am li nga xam ne tey moom mooy rapport bi donc ñu ci am contenté le fait que aujourd'hui metti woon na nag xaar bi mais comme jot nañ rapport yi donc je pense que ni nekk na loo xam ne aussi euh, mën nañ ko tuddee mbégte. Mhm. alors rapport yooyu ni muy yéexee génn yéen euh, ndax comprendre ngeen ko alors que at jot euh, ci la ñu war a génne rapport ñoom Cour des comptes. waaw rapport yi nag le fait que muy yéex génn loolu je pense que ni nekk na loo xam ne daf ñu jaaxal te boo xoolee la loi de 2012 bi nga xam ne tey moom moo abrogé la loi de 1999. bi organiser cour suprême boo demee ci article trois bi ñoo ngi naan la euh, bi organiser la cour cour des boo demee ci article 3 bi moo ngi naan la la cour des comptes dafa am sañ-sañ obligation chaque année mu produire lu ñuy wax un rapport public général donc loolu exigence légale la donc loolu kenn waru ci mën a déroger yoon moom moo ko jox sañ-sañ boobu parce que boo gisee yoon tey jël sañ-sañ boobu ni cour des comptes chaque année war nga jox askan bi war nga jox Euh, sa réew war nga leen defaral benn rapport parce que c'est pour permettre tey askan bi waa société civile yeneen secteurs yi et même l'État bi Sénégal ñu mën a xam ban secteur moo doxul ñu mun a xam ban secteur mu am ay dysfonctionnement ñu mën a xam ban secteur moo am ay anomalie donc loolu euh, euh, dafay dafay dafay jàppale état du Sénégal ci ni nga xamante tey noonu lay mën indi ay correctif ci yenn entité publique yi nga xam ni xëy na euh, am na jëf joo xam ne ñoo ngi ko fay def te méngoowul ak la transparence xëy am na jëf joo xam ne ñoo ngi ko fay def te méngoowul ak la bonne gouvernance mm-hmm. donc moo tax xëy na ñu ni chaque année Cour des comptes na génne li nga xam te moom mooy rapport mm-hmm. mais nag retard boobu moom ñun mënuñu la wax lan moo ko waral te sax gis nga retard boobu tey euh, dafay dem ba dafay pousser ñi nga xam tey ñoom ñooy askan bi ñu posé wu ay question mm-hmm. ne mais est-ce que newul sax état bi moo nekk ci ginnaaw est-ce que sax newul tey xëy na le président de la république moom moo tax rapport yi bëggul génn donc dafay pousser tey askan bi ñuy poser ay question hmm. donc je pense que ni même l' état du Sénégal il gagnerait à ce que tey Cour des comptes. bu dee mën na leen jox ay injonction wala bu dee état bi mën na ci def de sorte que Cour des comptes mën di génne rapport yi à temps chaque année je pense que ne tey dina mettre tout le monde à su boobaa askan yi les sénégalais kenn dootul am ay perception ci kan moo lan moo tax rapport bi génnul est-ce que du état bi wala boog est-ce que du diw donc je pense que ne loolu aussi war nañ ci gën a mën a gën a mun a liggéey. Mm-hmm. ñetti rapport yi génn yow loo ci jàpp. waaw rapport yi génn euh, bi ñu ko xoolee gis nañ que ni am na ay dysfonctionnement am na ay anomalie am na ay irrégularité donc am na ay entité yoo xam ne wax dëgg yàlla Cour des comptes dafa dénoncé li nga xam tey moom mooy euh, seen seen gestion alors man ma jàpp ni donte Cour des comptes relevé na ay dysfonctionnement relevé relevé na dafa relevé ay anomalie mais man damay wax ni li gën a am solo tey fi ma toll fi ñu toll nii mooy naka la ñuy def ba recommandation yi nga xam te Cour des comptes daf ko fësal recommandation yi ñu mun ko mettre en œuvre xam nga lu tax parce que Cour des comptes tey bu demee ci benn entité gis ni lii nii am na dysfonctionnement am na ay irrégularité am na ay anomalie Cour des comptes ci wet bi danaan dysfonctionnement bi bu ñu appliquer telle recommandation dina fa indi saafara bu gisee ne anomalie bi bu ko relevé dina ah li nga xam ne tey anomalie la bu ñu appliquer telle recommandation bu ñu defee telle euh, bu ñu appliquer telle solution loolu dina dina fa deñ man ma jàpp ne tey li waral li ñu man li ma intéressé tey sama réew mooy ma am réew moo xam ne du du am benn dysfonctionnement ci wàllum gestion des finances publiques donc kon man li ma war a def mooy que recommandation yooyu nga xam ne tey Cour des comptes daf ko def daf ko fësal nañu fexe nag ba recommandation yi ñu appliqué te ma jàpp ne sax même état du Sénégal moo war a gën a mën a taxaw moom war a nekk au devant pour que recommandation yooyu nga xam tey cour des comptes daf ko def ñu mun ko appliquer parce que tey état bu mettre sur place la cour des comptes dama jàpp ni état dafa bëgg tey cour des comptes mun ko accompagner ci li nga xam tey mooy politique de bonne gouvernance bi état di def kon cour des comptes bu joxee ay conseils ay recommandations état du Sénégal état du Sénégal moo ci war jiitu waaye tamit ca wet ba cour des comptes boo jëlee tey la loi de 2012 tiret 20 euh, tiré 22 autant pour moi du 27 décembre 1900 euh, 2012 euh, bi nga xam ne tey moom moo euh, tënk euh, le code de transparence dans les finances publiques loi boobu dafa ni Cour des comptes yow bis boo génnee sa rapport def ay recommandations doo ko jébbale rek croiser les bras. Mm. da nga am sañ-sañ organiser lu ñuy wax un suivi de ces recommandations maanaam tey Cour des comptes bu defee ay recommandations dafa war a après di ko saytu. Mm. topp ci ginnaaw di xool ndax est-ce que ñoo ngi appliquer li nga xam ne tey moom mooy recommandation yooyu. parce que loolu lépp li ko waral mooy recommandations yi pour man. mooy li gën a am solo mais bu ñu bëggee nekk fi naan non diw dañ ko épinglé ki deful dara wala kii jàpp nañ ko wala kii dañ ko war a bàyyi loolu dañ naan réglé wul problème bi lii réglé problème bi mooy solution yi nga xam te Cour des comptes daf ko préconiser pour que ñu mën a remédier à ces dysfonctionnements la Mhm. Euh, souvent ay sanctions la ñuy xaar euh, wala ay ubbi en tout cas information judiciaire te loolu gis nañ ne bëriwul di am dossier yu bëri of nag sax waxoon na ci lu mel ni dossier code bi euh, cour des comptes wax si mais ba tey gisuñu si benn avancement yow loolu noo ko jàngate waaw loolu man dama jàpp ni bu ñu nekkee ci état de droit ñu am benn organe bu mel ni cour des comptes te je rappelle cour des comptes ñi fa nekk ay magistrat mhm. lañ. ay borom yi xam-xam ay magistrat lañ. moo ngi mel ne tey tribunal bu rendre une décision de justice donc ñoom bu ñu demee xëy na ba ni tel dossier war nañ ci ubbi information judiciaire man dama jàpp ni loolu waa Cour des comptes li tax ñu wax ko xam nañ ko donc loolu aussi je pense que ni état du Sénégal y gagnerait à ce que Cour des comptes bu ne telle affaire nañ ci ubbi benn information judiciaire ngalawaay nañu bàyyi justice mu def li nga xam tey moom mooy liggéeyam parce que ab réew buñ koy tabax ab réew bu ñu ko bëggee tabax ba nga xam ni tey dañuy am réew moo xam ni dañuy dañuy dox ci transparence dafa am yenn graine yoo xam ni bu ñu gisee ni ñoo ngi gàkkal liggéey bi nga xam ne tey état du Sénégal moo ngi koy def bu amee ay nit ñoo xam ne dañuy gàkkal liggéey bi nga xamee ne tey euh, askan bi moo ngi koy def nguur gi di ko def man dama jàpp ne ñooñu peut-être dañ leen war a sempi ci li nga xam tey moom mooy circuit ci circuit bi donc kon Cour des bu joxe ay recommandation yoo xam ne dañuy nañ ubbi benn enquête jëmale ko ci nit état du Sénégal a def de telle sorte que enquête boobu ñu mën ko doxal mais également justice def liggéeyam parce que loolu aussi je pense que ni moom moo ñu mën a permettre pour que ñu dem ensemble ñu mën a tabax réew mu réew moo xam ne dafay am dafay am euh, état de droit ba pare dina mën a indi ay saafara ci dysfonctionnement yi. Mhm. ñu taxaw tuuti ci rapport OFNAC euh, euh, pas OFNAC je veux dire dossier COUD OFNAC épinglé woon na ko wax naa ko sànq Cour des comptes ñëwaat wax ci mais ba tey gisuñu foofu sanction ndax da jàpp euh, yow bokk nga ci ñi xalaat ne xëy na politique moo waral mbir mu ba léegi leerul Pape Alé Niang sax d'ailleurs journaliste bi. bind na si benn livre wane si ay mbir yoo bari yoo xam ne mu ngi sukkandiku également ci ay rapport ngir wax ko. waaw euh, pour le dossier du COUD bi nga xamee ni gis nañ effectivement que Pape Alé Niang récemment def na ci livre man nag dina ma jafe lool lool ma ni euh, li tax dossier bi antuwul euh, parce que dafa am benn benn mais politique bu ci nekk loolu je pense que ni à mon niveau dina ma jafe loolu ma mun ko affirmer parce que actuellement fi ma toll nii awma les informations pour mun a wax que ni li tax dossier bi antuwul dafa am lu ñuy wax une main politique mais li ma ci mën a wax mooy que ni te je pense que ni tout le monde yi gagnerait à ce que mbir mi buñ ko tiré au clair parce que aussi li may faral di wax souvent rek nit moom buñ la accusé dañ lay jox li nga xam te moom mooy la présomption d'innocence parce que mm. aussi aujourd'hui il faudrait que les gens comprennent que Cheikh Oumar Anne bénéficie de ce qu'on appelle de la présomption d'innocence boo ko waxee nag Sénégal ñu ni diw dafa am fu mu far ainsi mais tant que tribunal condamné wul diw ban ko yaa def principe bi ñuy doxee mooy dañ naan kooku dañ koy accorder li nga xam te mooy présomption d'innocence maintenant nag je pense que ne aujourd'hui ku nekk yaa ngi wax di jëmle sa côté li ci am solo mooy tey justice bu doon def na liggéeyam dinañ xam actuellement fan la mbir mi féete parce que Sénégal moo ci gagné euh, nit ñi keneen ñi nga xam ne également ñu ngi leen ci tuumaal su boobaa justice bu waxee bu dee yow lañ la doon tuumaal defoo ko sa der dina mën a set donc je pense que daal c'est affaire boo xam ni peut-être xëy na les différents acteurs euh, buñ ci yoon jógee bu ci yoon àddoo xëy na dinañ mën a trouver li nga xam tey moom mooy euh, fan la fan la dëgg gi féete. kon xëy na plainte Cheikh Omar bi mën a gindi nit ñi. waaw dégg nañ que ni Cheikh Omar dina dina porter plainte bon maintenant dañuy toog rek pour pour apprécier parce que encore une fois de plus ñun askan bi faruñu fenn ñun daal li ñu intéressé rek mooy na dëgg gi feeñ ñu xam effectivement euh, voilà seule la manifestation de la vérité ñun moom moo ñu intéressé ci ci mbir mi. Mhm. foofu daf ñuy indi ci indépendance de la justice bu ñuy wax politique ak justice yenn dossiers yi ndax tey yow bokk nga ci ñu jàpp ne yoon moom na boppam. waaw xam nga mbirum indépendance de la justice je pense que ni loolu aussi waruñu am honte di poser le débat parce que justice bu indépendante à cent pour cent amul ci benn réew. donc l'indépendance de la justice pour man ket la boo xam ne saa bu ñu xëyee rek dañuy tendre vers ça alors loolu bu ñu bu ñu am complexe di ko wax te bu ngeen gisee union des magistrats euh, daan dañuy def ay communiqué doon dénoncer dugal loxo bi nga xam ni état bi daf ko doon dugal loxo ci ci appareil judiciaire loolu magistrat yi ñoom ñoo ko wax bu ngeen fàttali ko euh, euh, en décembre 2017 xaw ma décembre 2018 union de magistrats pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal dañu organiser woon benn colloque doon débattre sur la question de l'indépendance de la justice donc bu ñu demee tey ba magistrat yi loolu di waxtaanee la question de l'indépendance de la justice donc loolu c'est devenu une réalité du suñuy waxu du ñun ñoo ko wax mais ñoom ñoo ko posé ñu gis ko et je pense que ni sax xëy na tamit ci dynamique boobu la ñu saisiroon le président de la République son excellence Macky moom ci jëmi boppam sax mu mettroon sur place benn comité boo xam ne dafay moderniser li nga xam tey moom mooy la justice te comité boobu su ma juumu c'était le professeur Isaac Yankoba Ndiaye moom moo ko jite woon donc am na liggéey bu am solo boo xam ne comité bi def na ko donc je pense que ne ñoo ngi xaar ñu mën a appliquer li nga xam tey moom mooy recommandation yooyu mais également gis nañ union des magistrats jotoon na def li nga xam tey c'était des euh, des recommandations pour que ensemble ñun ñëpp ñu mun a tabax benn justice boo xam ne dafay nekk une justice qui est très forte dafay nekk une justice boo xam ni dafay am indépendance euh, bu bu bu absolue donc loolu combat boo xam ni waruñu am kerse di ko di ko di ko di ko wax donc combat boo xam ne tey képp kuy sénégalais da nga ci war a dugal sa loxo pour que voilà d'ici quelques années ñu mën a am justice boo xam ne wax dëgg yàlla euh, la question de son de son indépendance dootul nekk loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy ŋàññ. Mhm.